di wax ne tudd yàlla lu ci doon tudd yàlla lu ci ndigal doon xam nga mi ngi jam jël ñaan wirdo lay tudd yàlla lu ci ndigal doon ma ne ko gis nga jaamu yàlla ñun duñ ci xuloo waaye nag jàngal ma yaa ayuha nabiyu inna arsalnaaka shaahidan xam ko tax jóg leer na dèjà wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bu ci yemoon xam nañ ñu ko tax a jóg mais kon ndigal ñun bu ñu laaj lu ko indi ci zikkar mais bu ñu waxtaanee ba ci kanam dinañ gis ko ci indi waxtaan wi mooy ala bi zikrillahi tatma innul qulub xam nga loolu laaya la ci alquran ci saaru nga xam ne mooy saaru manuga maanaam suratu mooy laayay ñaar fukk ak juróom-ñett ci suratu raad yàlla mi ñu bind xam ñu alaa mu man xalaqa moo ñu jox information bu am solo boobu nee na am na ñoo xam ne dafa leen doon misaal ne mooy ñoo nga xam ne dañu gëm yàlla di ko fàttaliku di ko tudd ba waxtu wu nekk ñoom ñi ngi ànd ak seen sago seen xela ngi dal mu ngi dund bonheur mu ngi ne tekk bi nit ñuy fukkaréeréer mu ne alaa waawee bi dikrillaahi ci tudd yàlla ci bum ci mun di doon tatma innu lay dalee alqulubu xolu jullit ñi xam information xel mu dal lam tekki ak lam jar bu la yàlla wonee fi nga koy amee mel na ni boobu jox na la miftaaxu saada caabi bonheur ndax boo ubbi woon sa déglu seen nopp yenn jàmm yàlla yi nga xam na yàlla mayu leen xel mu dal ci yàlla boo leen di seetlu dëng leen di yërëm a yërëm a lekk neexatul ci ñoom naan neexatul ci ñoom xéewal réetul ci ñoom réew neexatul ci ñoom parce que ñu ngi ci angoisse di firfiri daanaka xamuñ ne dañu la bind indi leen fi sant leen dara gàddu leen lépp ñu ngay rek parce que xamuñ yoonu tu yàlla ne ala bi zikrillahi tatma innul qulub ñu ne la kon nañ seet zikrullahi kon lan la gannaaw julit foog xelam dal li koy dalal mooy zikrullahi zikrullahi am na ñu ñu wax ne yéen yéen ci uti ndigal di ci ñaan ay siya wante da ngeen a doon nitu bidaa dong waaye tudd yàlla yegul foofu loolu xam nga ne buñ koy wax ci capital bu toll ni Dakar te ki koy wax wala ña koy wax euh, mel ni dañ koy ndamoo mel ni itam ñun dañ ñu koy kajjee te am nañu ñun juge boo xam ne bu attee amul rappel mooy allahu subhanahu wa taala te alquran na ngi fi téere roman yi ñàkk fayda yi sax ko gën a cher boo ko ubbee lum la ci wax ne sikar lii la ak lii lay jëriñ loola rek a wér am nañu beneen texte boo xam ne ci la ñu dajale xadis yonent bi xam nañ ci lu tudd yàlla mooy lan ak lan lay war a jur te itam ba fi lislaam ñëwee ba léegi jamono ju nekk am nañu fi yàlla sant ñu xam ñaari téere yooyu alquran ak sunna di ko xamle ngir yàlla tax na ba nga xam ne diine ji ñu itteel ba tax ñu daje fii ala kulli xaalin ak lu suñ maqaama fu mun di toll suufe mbaa kowe suñu adhésion ci l'islam moom kenn laajteetu ko parce que nit du jóg jëm ci lu ko saful te jamono ngi nit yoo xam ne jamono yi liberté la entre guillemets kum neex nga gëm kum neex nga weddi waaye ñun l'islam lañ gëm te moo ñu tax a daje l'islam boobu nag yàlla ñu digoon ba muy wàcc te rapport de force yi booba yemuñ yàlla nag ne bu leen jaaxle inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun alquran maa ko wàcce fekk yéen a ngi néew doole yéen jullit ñi mais nag bu leen jaaxle maa ko wàcce maa koy garde du sànku du réer waxoon naa fi dinaa ko waxaat ci suñ tukki yooyu sëriñ Maamun doon junj mës nañuy dem ba ci benn dëkk ñu woon ñu kaamil boo xam ne nii la réyee ndax ay ay badoom ak i gazelle moom lañ daan rey di def derrière këyit di ko bindee kaamil ba saaba yonent bu daan xëy ak moom di gont moom moo ko bind ñu gaawantu di liir paas bu ñu liir rek mu bokk ak ñu bàyyi ci suñ kër ak suñ loxo doom yi ñuy jàng man xam ne loolu yàlla rek a ko mënoon ndax abu jahlin ibnu hisham na mu kàccooree la amee woon doole te sax loolu sax garaawu mais na mu kàccooree woon am doole noonu la ñëpp ña mu yëlefoon dafee woon ba bu ne leen kaa ñu konton yàlla ñu nangu te loolu nga bu ko defee nag booba yàlla ne déedéet alxuraan dana rëccu rëcc na fi mu nekk nii xale dina am huit ans mokkal ko mokkal ko dix ans mokkal ko mag dana dem itam ba nekk mag wàññeeku mokkal ko mus naa gis ci minan benn vice président de la république bu jógee Égypte mu ne sàkk naa pexe pour xam dara ci alxuraan

Euh, di jàng kaamil bi bu ma rombee baat bu ne tudd yàlla comme ala bi zikrillahi ma dali koy karbat dali karbat laaya ja ban la ba mu yàgg mayam ci fukki laaya ak juróom-benn doy na boo buggee exemple lu rek doy na fukki laaya ak juróom-benn yoo xam ne yépp yàllaa nga cay fonk tudd yàlla di ca tudd zikkar di ca digle sikkar su bëri te xam ngeen ne bëri ci yàlla bokkut ak bëri ci nit ñi yéen boo fi ne allah allah allah bala yàgg sax ñu ne tànqal nga ñu te yonente alayhi salatu salaam wax na ci xadis bu wér ne bul dañ di wax allah bañ ne waa ji dof la bañ ne waa ji dof la kon nag li ma jublu ci entrée en matière boobu mooy ñu xam ne jëmmi jamono la yonente boo xoon benn saaba bu ko laaj ci kanam ay témoin ne ko waaw ñun de waay ñu ngi woon ci lëdëm ak lu baax baaxul yàlla toxal ñu indi ñu ci lu baax yaa ngi nii yaa ngi jubal ndax suñ gannaaw lu baax lii ndax lu bon dana am ku ne waaw mu a ndax gannaaw lu bon loolee lu baax dana amati mu ne ko waaw xam nga lii jar na laaj ba boo demee ba tase kenn ku nekk même ci daa daaira ñu baax ñi mais mu génn ci moom di jouer beneen rôle wala nga gis ku nekk ci daaira bu doon dem moom yàlla may ko muy jouer rôle baax nga xam ne yëpp ci waxu yonent bi la nekkoon yonent bi neena da ngeen dem kañ ba nga xamne nit ñi dinañ dem ba lu baax ñu tuddé ko lu bon lu bon ñu tuddé ko lu baax lu baax ñu tuddé ko lu bon moy li may junj nii ñun yalla daf ñu defal sutura bi l'islam di waxu ba egsi ci réew mi ñi ngi waaj yag nak yalla may ñu ñu teel ci jot teel ko dig maa ngi ñëw ci li ñu taxajok ba legi suñu maam yi yàlla may leen langue bi ñuy wax langue arabe ma di ko wax man la langue du Coran lugatul Coranul Karim ndax moo ñu ci boole ñun yàlla def ñu teel koo xam ci Sénégal ba dégg naa ci histoire mën na am ñu vérifié ko danañ ci xam dara ne bi Faidherbe bu ñëwee Sénégal di commencé wax kilifa yi booba xam nga France France seen wax du dugg ndax ñoom tubaab bi ñoo indi seen wax ñoo ñëwaguñu woon te itam wolof ñoom dégguñ ko dégguñ tukulóor dégguñ leneen ndekete arab moo doon langue bi leen boole woon ñu war ko retenir rawatina pour étudiants yi ko xamagul arab daf fi yàgg moo taxoon nag ñu gaaw a dégg lislaam gaaw a dégg googu nag moo tax ñuy waaxu ci lislaam boobu ba xëy xam ay manahiju suluk yoo xam ne ay nit misaal mi mooy ñu ne gott baa ngóog ñëpp ko moom yàlla ko bindal ñëpp am ñoo xam ne jàng na ñu ñuy defaree lal ak ay meuble dem ca gott ba dëgg ya jam leen ñu dank bant ya yi gàddu ko indi di ko defar ba mu nekk chambre à coucher bu ñuy laal muy melax xam nga yéen a bokkoon àll bi kenn aayu la ko waaye nag moom mi xas xam ni ñuy defaree meuble mu am ca lijaasa dem indi meuble defar taaj xam nga ne boo foogee ni ñàkk euh, am bopp mooy nga ne man kat du ma jëfandikoo table ñu defar ba pare damay dugg ci gott bi dagg ci bant yi ñëw defaral sama bopp loolu mooy waxi ku ne Seydi Ahmadu Tijaani radiyallahu anhu lim may sàcc yurdo mi ngi woon ci sunna kon nag du ma ko jëlee ci moom. boo ne du jël ci benn kilifa dara ma ne c'est comme rek nga ne woon pharmacie yii ci biir Ndakaaru garab yi jógewuñ lu ma ci matière bii ci àll bi ak garab yi. au lieu may jënd aspirinu pharmacie damay dem man uti garab ci àll bi mais pourquoi li ñu defar jox la ko jàpp ci ba ba nga gisee ne amul njëriñ moo tax ñu am ñun ñeneen am liñ am ñun mooy mën haju tijaani kon nag mën nga ma laaj tariqa tijaaniya bi ñu boole fii te yàgg cee waxtaan te tey ngay waxtaan ci zikru ndax zikru bi ngay wax foo ko jëlee ma ne ci biir tariqa tijaaniya ndaxte ahmad tijaani radiallahu anhu na ngeen ko délégation marocaine bi ñooy yegg si noonu Moulay Ahmed Alawi jiite ko ngeen tatagal leen te kenn du wax ñu toog ak jàmm ñu continuer cheikh مولاي مصطفى العلوي مصطفى أحمد العلوي ومن معه شرعنا في المحاضرة قبل وصولكم وقلنا للناس إن الموضوع إن العنوان هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب والذي نريده هو أن نذاكر قومنا وأحبتنا حول ذكر ومعانيه راجلا من الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح عبد الله بالله رضي الله عنه نني ñi jàpp ci wirdoom من nañu wax ne moo ñu entraîné ci tudd yàlla ba léegi man du jàngale tudd yàlla maanaam du entraîné la ci nga tudd yàlla ndax ci nga ne mais dama lay wax valeur bi pour nga dolli ko fonk mais képp ko am wirdo xam nga ba nga koy laaj dañ la wax ne lii mooy wirdu ay wirdu lazim ñu bari ngi naan laasim laasim mais xamuñ ne laasim waxu arab la mi ngi ci lazima yalzamu luzuman fa huwa lazimun maanaam dafa war taxoog yow mënoo koo bàyyi cela veut dire que wirdo yi soo ko jël li ngay jàng suba ak ngoon dootoo ko bàyyi allahumma allahumma lu mooy ngant boo xam ne mënoo ca dara ngant booy mooy ku feebar ba mënoo wérdo amuloo ci bàkkaar ku dara natoon sax ba mënoo wérdo taroo ko dangay ngay dellu si gannaaw ga commencé waat sa wérdo ñaan li ñuy wax ëtt ji diit mooy ku la beesalal mais tudd yàlla bi rek nag moom سبحان الله استغفر الله اللهم صل على مولم قد تدي علي خم ام نيو كو خم خم ام نيو كو خمول مي علماء وي راوت الامام النووي نانا مام امول سقف كونديسيون بو لابي بو بول بو جولي بو جوليول من نغ تدي الله نكو ييب خم الامام النووي تي مفتاح الفلاح بكو واجي سرا سخالنا مو علماء الشافعيه يبرئ اكثر نيوم ne tudd yàlla mooy jaamu yàlla gi nga xam ne Ibnu Abbas nee na jaamu yàlla gu yàlla santaane utal na ko waxtu ak condition lu may zikr lu may tudd yàlla amul waxtu amul position amul condition spéciale soo laabee moo gën mais wax ne nekkuma ci xaalatu tahaara tax doo fàttaliku yàlla doo ko tudd ci sa xol ma salaameñ olmaa wi ne nañ déedéet am na sax leneen luñ tere itam ci waxtaanu zikr la bokk nee ñu mooy tandiku tudd yàlla ci kanam nit ragal mu ne dañ lay tuumaal ne da ngay ngistal dangaa bëgg ku la yéem nee ñu loolu daanaka bokk na ci lañ lañ waxoon ci sunna ne bàyyi jëf ju baax ngir ragal ku la wax dara sax ci bokkaal yàlla la bokk waaw ndax am na bés benn sahaab yi nee na maa mas a génn ànd ak yoon ci yàlla Muhammad ñuy dem fenn jaar ci masjidul xaram mu ne ñu dégg kuy naafila di jàng ci kaw sahaaba bi ne ma ne waaw ma ne yonent xëy na waa dafay ngistal yonent ne ko laa walakinahu awaahun yonent ne ko déedéet ngistalu kii nit ku dellu ci yàlla dellu bu wér a wér la ñu ne kon nag boo amee sa kurus mbaa ngay wax say tasbiix mbaa ngay wax say allahumma mbaa ngay wax yaa latif mbaa ngay wax ci benn ci siixa yi danañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala ragal ne sàmbaag may xool léegi mu ne dama koy jaay yu amut wala damay ngistal yonent nee na déedéet def ko rek ndax boo bàyyi woon lu baax ngir ragal ko la wax dara loolu ci bokkaale yàlla la bokk très important loolu wirdoo nag ma ne sëñ naa cheikh ñun ñu jël ko ci moom mu entrer nañu wax na leen daf da nga koy saxoo wax na leen ne am na wasifa xam nga ko wax na leen ne am na xëylal mën na sotti te doo ci boole aromage yi lu publicité du foor foor mais soo ko ca boolee loolu mooy wirdu wi nga xam ne du lazim mais ixtiyaar yi la bunt boobu nag ubbeeku na ma ngay dem di dem ba gaañaa ngi ay jisir yo xamne ne gisee da nga yemu ci yalla do xam sax ko ràbb ci wir ak yëkkati ko mais am ci itam ñoo xamne ña nga lay ci pet di la buux ay mbóot yo xamne ñom rek ñoko ko def mbóot mais yalla xamul yonentu xamul cheikh xamul ma ngi ci jublu nak ñu tay musna naa ci serigne bi tok cheikh abdou aziz muy wax ne ko fexel ba bu gaganti ko ci mbett kooku mën xëj la maanaam itam mboot itam jëlee ko ci ku am ndigal koo xam ne wóor na la ndax bu dul loolu xam nga ne am na benn waay ci ab dëkk ci biir réew mi fii benn xaritam ne ma gaa yi dañ doon wax ay turu yàlla yu tumuraanke waa ji nee na jël kurusam moom naan nii alors mais bugg gaa yi yéem ko ndekk waa ji dafa naan xàppitu bentinki xàppitu bentinki alors gaa yi gaa yi naan waa ji turu muy jàng xam naa ne mooy lis mu laasam loolu yépp nañ ko moytandiku واو خذ الحق بالحق من اهل الحق للحق دغ بوكاي جيل جيل كو غير دغ جيليكو سي نيت دغ ني تانا يالا تخ موي حق وقل الحق من ربكم لوري بوكا دافي نك ويردو لا ني سيكار لي ني جانغال ندخ جارنا كير كيري ولا جاروكو ني سيت دغ لي دو ماس كو صاح غودل مي دما باغ كوما لاج فو جيلي تا دوكو خام تكت وخلا ديني سمو وخي باب أمو البن بلر مدين العلم قال الله قال رسوله خم خم ويالا نينا يونت نينا خم خم ديني ده بلدون لولو لقال من شاء ما شاء من دمدون خول جس بن آية بو فور مي بو رغلو جي سورة بقرة نك بو يواني لين يوخ الذكرو فور جيم فور اك يكتكو يكتكو يالا دفع سورة بقرة di wax ak nit ki ne ko fazkuruni azkurkum fazkuruni azkurkum xam nga boobu ay képp képp doyoon na pour ñëpp di ngaw ngaw yi ci zaawiya yi ak kii ak mbedd yi bañ naan ay dof lañ ndax yàlla moo ne fazkuruni fàttaliku leen ma azkurkum ma fàttaliku leen fazkuruni tudd leen ma azkurkum ma tudd leen nee na nag in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi yàlla nee na ci xadisul qudsi bu ma sama jaam tuddee ci xolam la ilaha illallah ci biiram yàlla nee na man ma tudd ko man man tam ci man ñaari man yooyu nag duñu dëkk ñaari man yooyu mukk waaw bii dafay jeex ci bëgg rek bala jeex ci mas fee nekk te du fi jóg mu ne soo ma tuddee ci sa néew doole gi ma tudd la ci sama kattan li nga tudd ci li nga xam ne ma soo fi woon nekk te dang fi ma sa ñàkk nekk ma tudd la man ci sama maqaam mi xam ne abadiyatu la duma fi jóg nga tudd ci ku am bàkkaar ma tudd la ci kuy bale bàkkaar nga tudd ci borom soxla ma tudd la ci kuy faj soxla yi faskuruni askurukum washkuru lii wala takfuruni te nag ngeen gërëm ma ci loolu ma leen may ndax man pour ngeen tudd yéen amu pexe ndax man man rek fi nekk man nag mën naa leen a ñàkk tudd man mën naa leen ñàkk tudd kon nag mu ne washkuru lii washkuru lii wala takfuruni te bu leen ma weddi shukru ak kufru kufru ni la wax foofu benn xanaa aaya ngoog xadis ba ñëw ne ana jaliisu man zakarani yàlla nee na man man allah ku may tudd man maag yow a toog moo tax am na benn waay maamun waajo ca muy wax ne dégg naa gaa ñi dañuy lal malaan dañuy lal malaan di jàng ay jàng ne dañuy teewal ay arwaaxu yonent bi ma ne ko yow xamoo lu xew man ne ko ñun bi ñu lalee malaan di tudd yàlla ka fa teew lu yonent foor foor nag moo gën a foor yonent parce yàlla leen ana jaliisu man zakarani ku may tudd maag yow a toog man yàlla xam nga nag ku am toog ak yàlla amaale nga toog ak yonent bi ndax moom du tàggoog yàlla moo tax ñi ñuy faral di kat ji dafa mel ni ñun ñi ngi ci benn vallée ñoom ña nga ca beneen vallée suñu bos a ngi naat ami fleur am ndox mu neex seen bos a nga bëri ay fen ak i ay jiit chetaana ma baynal yasidayni man halal chetaana ma baynal yasidayni waaw te boo ko buggee kii maa dox ba fekk benn intellectuel mu ne ma jóg man di maa jommi mu ne ma sànq ci cinq heures mooy quart ba ci huit heures et li fi xew nit ñi daf meen gisuñ ko mu ne mu ne maa gis groupe boo xam ne julli nañ tàkkusaan ci waxtu muxtaar wa te dañoo laab def nañ fi zikrul jumaati waxuñ laa ilaha illa abi suma bàyyi fi rek abadan auzu billah laa ilaha illa allahu lañ wax balu ko fa ñaanalante fa jullugee ci mbooloo tasaaroo ma gis ñu leen di xas te kookee doon leen xas ba ñuy noodu tàkkusaan ma nga ca match boo xam ne toog na fa ba te sax équipe am dañ koo gañe xam nga lii doy na waar maanaam su fekkoon ne su fekkoon ne valeur u yëf yi nit ñi dañ koy xoorandoo jugé ko en tant que tel xam nga ne doo gis nit koo xam ne cinq heures moins quart ba ba huit heures et quart ngi ci topp yàlla bu senn bu am ndigal kii mi ngi ci xaflatu bu ma sëkk. Alfayda FM. dégg nga te sax la mu doon wut amu ko. ñu ne kii nitu sunna la mujaahid la kii nit ak bidaa la yonentu noon na da ngeen dem ba lu baax ñu ne mooy lu bon lu bon ñu ne mooy lu baax mais nag ni ñu koy sant yàlla mooy ñu ngi naan alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadaana allah gënuñoo muus kenn nag bu ñu yàlla dimbaliwutoon itam noonee la ñuy mel seetaan match boo xam ne ci échec lay daanoo boo fa jógee daanu daagu foog ni waaye nitu sunna gaa yi ñooy nitu bidaa loolu nattu la yàlla koy teg ku ko neex ma jox la beneen aaya yàlla nee na alladina yazkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina adaba annar yàlla ngi tagg ñi nga xam ne ñoom dañu koy tudd fekk ñi ngi taxaw mbaa ñuy dox dañu koy tudd fekk ñi ngi toog dañu koy tudd ala madajiihim donc nee na fuñ toll rek uu seen xelan ci moom uu seen xolan ci moom uu seen làmm ñu ngi koy tudd wala sax ñi ngi ci lu gën a kawe loolu loolu nag wane na ne kon tudd yàlla bu amoon lu ko gën a foor foofu la yàlla tagg nit ñi beneen aaya ne yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran wa sabbixuuhu bukratan wa asila yéen ñi gëm yàlla yéen ñi nekk jullit yéen ñi daawaane yéenay taifatul iman dee leen tudd yàlla tudd bu bare bare bare bari te ngeen di ko sabal suba wala bu la neex ngeen ngeen di ko wér dool suba ngeen di ko sabal ngoon wala bu la neex ngeen ngeen di ko wér dool ngoon léegi nag aarifine yi ñoom dañu ne bu ñu joxee ndigal lu général amran amman jox ko mbooloo moo xam ne ñoom itam ñu am nañ variété boo buggee tënku ci ndigal la il faut nga am cadre boo ko dugal parce que ku ne ci ñun mun ngaa seet waa ju baax joo dëkkal joo xam ne tey ma ca ay julleem julli ñaar fukki raaka ngir yàlla ëllëg mu fàtte ko gannaaw ëllëg mu fàtte ko nga gis koo xam ne xaal daf ko jàpp mu tudd yàlla ay yoon yu bari tey gannaaw ëllëg ma ngi ca leneen waaye nag boo amee cadre maay maanaam tariqa tijaniya wala nga ne qadiriya wala nga ne muridiya wala nga ne chaduliya wala nga ne nasiriya wala nga ne naqshabandiya maanaam am nga benn sëriñ bu méngoo yàlla yàlla méngoo ko mu am ndigal ci tasaare diine ji wax ma yëg na ko ci xolam ni ñu nangul ko ko mu ne la boo xëyee balul yàlla téeméeri yoon julli ci yonent bi téeméeri yoon wax am laa ilaaha illallaah téeméeri yoon na nga ko saxoo nag loolu lu baax la te tegtal yi du jeex nga saxoo ko lu tuuti loolu nga saxoo boo xamutoon nu mu toll doo ko mën a saxoo ku bëgg saxoo dara foog nga xam nu mu toll ah man am naa dëkkandoo boo xam ne moom ba ko wóoree ne mënul ñàkk lekk mburu mu mat ci bés bi dafa xam mburu lu muy jar mu defal ko budget mën na ko ku xamul looy jàng naata la toll xam nga doo ko mun a saxoo ah, moo tax ñun ñu ngi gërëm yàlla di gërëm Seydi Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu bi nga xamee ne moo ñu sa wér boobu nga xam ne lu nit sàggan saggan sàggan sàggan ci atbaaw tariqa tijaaniya da nga tudd yàlla bis bu fet di nga ko balu bis bu fet di nga julli ci yonent bis bu set abadan abadan abadan moo tax nag euh, sa papa sunu sëriñ منون تي بن لاتر اورينتاسيون والله ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح جن نان تخي كو جيس مو تخي دا فا اندك كو تخي كو جيس متخي تخي دا فا اندك كو تخي نغا ديغي سي ني كو جيس مو تخي ادي دا فا اندك كو تخي ادي باسكو كو تخي ادي ليك ليك صاح دينا دون نيت كو جانغ ديني با ايلوكان صاح مي بو ني سيرين ديو رضي الله عنه مو ني لولو بدالا te kat yow da nga ñaanal sëriñ bi rek yal ko yàlla gërëm loolu bi daal Cheikh Abdou Aziz mi ngi may yootal naan ma limam Busayri waxoon na ne yàlla bu tàggatee aw nit pour ñu nangoo sonn ngir kenn ku texe nee na ñoom itam dañuy texe ci texe kookee waaw bu yàlla tàggatee ay nit unaasan ay nit li saidin pour ñu mun a nekk ci gannaawu ku texe fa innahum suadaaw parce que maqaama yi dañuy wàllante mbaax day wàllante in inna shaqaa bi shaqi mulaun wal aksu bilala kon nag yonent yàlla muhammad alei salatu nee na jëf ju tuuti waaye dafa sax borom daf te sax du ko bàyyi nee na moo gënal yàlla jëf ju bari te saxul am na nag ñu ne sunna ci lañ dëgg ba ne bul konte li ngay doo ma ne déet sunna mooy yonent wax mbaa mu def ko mbaa nga def ko mu ne la noon la te nee na jëf ju tuuti ju sax moo gënal yàlla jëf ju bari te saxut ndax yàlla yàlla yàlla itam programme la boobu yàlla itam lim nizaamu kawn bi ci programme la ko tëral moo tax buñ nangu beneen aaya wax nañu ne wa zaakirina allaha kasiran wa zaakiraati aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima ba muy lim jullit ñu góor ñi jigéen ñi ba ca biir nee ak góor ñi nga xam ne ñu ngay bari lu ñuy tudd yàlla ak jigéen ñi nga xam ne ñi ngi bari lu ñuy tudd yàlla nee na ñooñu ñépp yàllaa ngi leen dencal baal leen seeni bakkaar may leen yool bu mag a mag a mag am na aalim bu ne ma bul fàttee wax nit ñi ne leen bu yàlla ne aziman bokkute bu nit ne aziman ndax nit mu ngaa naw lu réyul sax parce que yow noonu nga toll mais yàlla mi nga xam ne dafa taawu kawnu bi azalan wa abadan moom bu ne rëy na rek rëy na waaw bu ne rëy na rek rëy na kon nag li ma ci jublu mooy su la wóoree ne nii la الفايدة نن بلا واخي نو دونو بوكو فالي يالا ني واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والابكار mu mel ni dafay junj borom wirdus ba ngoon del tudd yàlla lu bare bare de te dee ko sabbaal subaak ngoon toujours subaak ngoon nga xam ne murabbuuna yi ñu jox wirdo yi ñu ngi ko tabax ci asasu kitaabu sunna طريق محض الفضل والرضوان اسس بسنه والفرقان نخدة يلا موانا سبانغون يوتم نيل سبانغون لا كل ابلي بدنك بو خولي فوكو نيهول نك دوغور يلا ني سبانغون ني ني سبانغون واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكاء عشيو موي غون موي عشيه موي مساو ابكار موي بكرتو موي صباحو بعد نيو بريك ملي نيو وخي بن بن اينا الذين امنوا موي سن بس بي وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب تدي يالا فاتليكوكو نوتليكوكو دغرلوكو موي تخ نيت ام كلمة دال باسكو borom xam xoy même psychologue yi même ñi def psychanalyse ñom nenañu li waji am ci ay deureum

bu ñu jëlul ay ay per yu lañ nelaw la duñ nelaw ñii di def ay musique jéem cee nelaw ki foog ne moom amul dara yàlla nga ko may xel mu dal ak wér gu yaram bu tëddee rek nelaw nelaw ba bu sàggane sax du julli fajar kon nag ala bi dikrillahi tatma'innul qulub am na waajoo xam ne dafa tudd yàlla xam ko wettali koo ko nekk nag ca loolu ko itteel am nag ku koy yoot dégg ko muy symbole am ku koy fexeel di rëdd ay rëddam waa ji ne ma alhamdulilah man de waaye yéemu naa man yëguma woon ki may yoot lu mooy gannaaw bu mu daanoo ci kàmb gi di yuuxu laa ko door a xam képp kuy jëflanteeg arif bi laa nga bàyyi xel loolu bi nga koy yoot yégula la sax bay mooy mais du yëg itam naa nga koy yoot fekk daanu woo ba ne kërëb mu ne eh ñu nekkee man nga doon yoot الا بذكر الله تطمئن القلوب امنا تي صاباي كو خامن دا فا ملني ليجاند بو نكاي واخ تاي دانيو دا فا ام تي تانكام فيبر بو خامن ميدساي جامونو جوجا دانيو ني فوك ني داغ تانك بي بور سوي كو ني سيت سيت سيت نيو ديف ام كون مان داي خامنا تي واجي الفايده بو اسي كبار ني الله اكبر dina lap lap go xamne ragal na ne meun nañ ko opérer du ko yek ah, bismillah ba waa ji su juutee rek médecin bi ñëw jël bëngam daal di koy anesthésier bëng rek coupé tànk bi faj mu nga ci sàbbaal ya rek subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi ak nag yu mag ya muy wax ba mu paree sëlmal làmb gisul tànk bi mu ne lu xew ñu ne ko sa tànk bi nuñ ko nu ñàkk dog mais nag yëguloo ko yaa ngi woon ci yàlla moom def ko sax histoire dafa ne ciix tànk bañ dagg ne ko maa ngi giñ ci yàlla ne musuma laa dox musmala laa jëfandikoo jëm ci lu naqar yàlla ñu daal di gas mu continuer dundam simplement dadi ala bi dikrillahi tatma'innu alqulub bu sa xel dalé nak yow yaay mëna defar yaay mëna defaru muy paix muy justice sociale mi mbokk mu baax bi do waxtaane ci suba il faut que gëm yàlla ak tumarinatu lal ko ndax te sa ba yi nga xamne ñom la ñëpp wax ne ñoy khairul quruuni te muy dëgg ño gën génération yépp yonentu len yar ñom bi yonent yi ñew mais gënuñ kan Amon na ci ñoo xam dañ jur dom ju jigen ray ko ne bu magge umu indil magati umu indil ma charge sociale bu ma wonul ñi dañ dan fekk am doole ñu nangu am def ko jam te fekk gor la gor la gor ñi dañ dan ngóobi yalla ñi dis jurtul xirim ñi def lu nekk ba mu ñewé mom yonent bi éduquer leen ci l'islam l'islam mom la yalla def muy moyen yi leen defee ñu doon liñ doon tax la ba kon nak سابي الاسلام موي حجة لهم وعلى كل من لم يلتزم به كفال الاسلام الاسلام موي نك حجته كون نك نون آه، تطمئن القلوب بكرة واصيلا جاب سي الله مو من تخ نغا يغ سي دغل غو خامني ما رديتالي كوكا باج داغي تانكم با يغوكو لولو سيكركم نين ما كون نك وايو بلا اي جي جيخ باسكو القران جفنيكو نباتو ذكرو ñun ñëpp biñ ko waxé amul ku xel da nag ku xelam dajul allah allah wala subhanallah wala la ilaha illallah wala allahumma loolu sikar la mais nak leg leg alquran ne azikru fek alquran ci bopam la ci jublu inna nahnu nazzalna dhikra dhikru fofu pour etiyan ay tax ma di wax ay alqurana amna na da fay wax ne فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بابو ذكر بلد ذكر بابو موي فاسالوا اهل العلم لاجل بروم خم خم بو خمول مي خمولو لاجو نك موي ياتان رير موتاخ ني ني رير رير نك خم دو ارغومون واو آه، دنج لي واخ تا خمون عبد الله واسعة الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها لين جاني بنين ذكر بنك موي بي ني واخ موي تود يالا الفايده فيم جيخ du xaj yalla nak neena ci alquran yalla amna tur yu rafet fad'uhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asmaihi tur yoyu ci alquran bokoy koy boo commencé woon baqara nga xamne bo bokon ci nga xamne dañ dem utali sen bop bant defal sen bop tabu da ngay ubi kamil bi fo romb rek turu yalla melom nga bind ko bu jexé ci wara 99 99 tu yo xam daf koy da fay jox yalla yalla ne fad'uhu biha bu ngeen koy wo woy len ko ni mu woyé bopam ndax mo gëna xam bopam fad'u biha bu ngeen koy ñaan na ngeen jotali ko tur yoyu mais nak teyal du tur yoyu rek la yalla am yalla ngeen tur yu bare bare bare bare bare mais nak yoyu mo ñew ci alquran allahur rahmanur rahim malik qudus salamul muhaymin bam jeex tur yoyu nak boo demee ci mboolem goxi àddina bi ulamaaw yi yooyu itteel ña nga cay defi kéemtaan ak i kéemtaan kéemtaan yu weex ak kéemtaan yu ñuul kéemtaan yu weex mooy ña nga cay jaamu yàlla ña nga cay sax wañ loxo ya fii muy defu wañ loxo ya fii muy defu layu layu aadaai al ashya li tanfari mais ñu ngi cey def itam yu ñuul mooy ña nga cey woote yu amul waaw xat alima kullu unasin mashrabahum ku ne xam nga fa nga nekk fi mu nekk nii nii boo am bu ñu amee ci tuuti yaakaar rek nit dina la déy wan la lu wér mais nit dina la déy wan la loo xam ne yow sax da ngay te yëpp daf koy tuddee tur yàlla wala mbóot na ko nit ñi bàyyi xel dee leen ñaan yàlla ko wax dee leen ñaanlu yonente ko def moom ci boppam sax sàkku na ñaan ci nit te moom moo ko moo doon tëbb ko Seydina Omar ou Ibnu Omar comme ci ñoom ñaar doon na umra ji tàgg yonent dem bay mu ne ko mbokk mi bu ma fàttee ci ñaan boo demee te am na léegi ñu rus wax ñaanal ma am na yoo dañuy rus wax lan ñaanal ma pourtant ankay ndax léeg-léeg sax yàlla nangu ñaan ci làmmiñ wu ko moy sakkaa làmmiñ wu ko moyul te na gaañ nee nañ boo ko moyee ci làmmiñ sax làmmiñ yu keekay mooyoo ko ci moom ay formule la yu ñuy caalitale yàlla pour mu yërëm ñu bu ko defee ma ne kon ñetti baat yooyu jàpp ngeen parce que gis naa fi étudiant à l'université de Dakar yooyu ñoo xam ñu ngi fiy jàng alxuraan di fi jàng ay woy yonent bi at dinaa ngi dox alhamdulilah mais ngeen bàyyi xel ne zikru am na buy firi alxuraan zikru am na buy firi xam-xam zikru am na boo xam ne mooy sikar bi ngeen xam tudd yàlla léegi nag mbooleem xeetu zikr yi nag ulamaa lii lañu wax ya rabbi ya rabbi ya rabbi zikr la bi ne ya latif ya latif ya latif zikr la bi nga ne ya baru ya baru zikr. Amna sax yo ya xam dang koy ya wax bal ngaa dugg examen laaj ko gaañu rek ko gaañu rek Bal ngaa dugg examen laaj ko gaañu rek ya rabbi yooyu zikar la mais itam ñu ne tok tok wara agir sa xel daj yalla nga bayyi lolé nga bëggon def sikar la zakara xaqa fartada ba gis na ko xamne sax ci taarix ci Bagdad état islamique moo fa nekkoon buy wax ne sàngara jaaduwul am na gaa ñu defar seen dëskëratu mooy bistro di fa jaay sàngara mu romb ko ci ci daaru salaam Bagdad nee na fiir jàpp ko ngir yàlla mu fàtte sax ne lii ala li jàmbur la mu jël yetam rek di toj di toj rek di toj rek ba mu yàgg nee na mu yëg ne euh, mi ngi yéem boppam mu ngi ci yëg nag sigiré mi ngi xaw a tiitaru mu ne mu xam ne yalla ja dem na bakka na ci def mu bàyyi ñi ko doon gis nak jaxlé yow ya songu toj te jexalo mu ne wa ma doon toj ngir yalla bama ma yëgee ne sama bakkan bi dong nga fi des la bàyyi gis nga ñi tudd yalla ba seen xol leer yu dafa bari seen dundu gis nañ euh, ko xam euh yalla ko mayon muy julli ci juma wu quartier am euh, bis bu set day teel a nekk ci sàppi su njëkk si te yàlla rek tax

compte ko muy nangami at la fa julli mu baa mu mboolem julli fa julli woon mu ne dajeeg yàlla fekk sonn naa ci baamu julli yi mais nangu na julli yu bakkan amul cër moo ma gënal foog ne maa fi nekk te dara nekku fa waaw xam nga imaam ahmad ibnu hambal nee na aaya tere na ko nelaw aaya bi yàlla wax wa bada lahu min allahi ma lam yakunu yaxtasibun waaw nee na am na ñuy dajeeg yàlla ba ñu tekkee téere lañ foogoon ni moo fa nekk nekku fa bu loolu lu triste mo mu loolu la doon bañ kon nak nga xamne tuddu yalla tuddu yalla bobu nak ñu ne lepp lo xamne même tok di xalaat ci masalam diine wala tok di set sëriñ fall naka nga koy résoudre problème sangam bi nga xamne war na ko yakal lu bare te yow yalla tax nga di ko def yépp ci tuddu yalla la tuddu yalla ci lamagne tuddu yalla ci xol ñaari maqama la laaj ulama yi laaj nañ ban moo ci gën fayda fm ñu ne tudd yàlla ci xol tudd yàlla ci làmmiñ baax na mais tudd yàlla ci xol a ko gën mais nag ñoom ñaar ñu ànd moo gën mais nag boo waree tudd yàlla ca kaw da nga seet fi nga nekk bu dee jàkka joo xam ne ngi jàng alxuraan ñi lee ngi amee seen kurus di tudd yàlla ñoom ndànk ñi lee ngi seet seeni leçon wu diine bul tudd yàlla ca kaw bu xam ne daf leen di jaxase lislaam ku la wax ne désordre ci rek ne ko jàngaat ko ba xam l'islam yépp ordre la nizam la waaye nag bu fekkee ne nee na yàqaloo kenn tudd yàlla ca kaw moo gën a imam Ghazali def na ci benn théorie boo xam ne kéemtaan la daf ko dund moom nee na mbooloo mi buñ dajee di sikkarandoo mbooloo mi di dégloondoo mu ne seen baat yi ni muy def xijaab mi ngi mel ni kenn kuy daane lenn ak mbooloo muy daane lenn bokkul bu ko defee bu la nit ne daje sikkar ca kaw bokkul ci sunna nekku sunna si yonanti wax de ñun te gis ko ci buxaari muslim tarxib wa tarhib majmau zawaid kutubu sunna yi gën a bari yépp gis ko ci moom waxul loolu dafa ne mën nga sikkar ca kaw mën nga sikkar ca suuf mun nga sikkar ci mbooloo ndaxte saaba yi am na ci ku ne daaw su bu ma tardewaan julli ca mbooloo ma ak yonent bi na may xamee ne julli nañ ba pare supposons que mu feebar mënul dem jumaa ja nu may xamee ne pare nañ julli mooy su sikkar sa jibee ñu ne booy sikkar danga naan da ngay yaru gaa yi sunna entre guillemets jamono ji dañ ne kuy sikkar bul yëngatu loolu itam sunna xamu ko de ndax sayyidna abu urakata nee na man maa ànd ak Seydina Ali bin Abi Talib ki nga xam ne yàlla rek xam ku këpp xam-xam ñu dem julli ci jàkk yoon mu ne ba mu paree la man fatala yaminan xam nga luy loolu mooy boo ne salaamaaleykum pare xam nga ilimaan ji dafa war a wëlbatiku ni safxatom janoog ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam mu ne ma gis ne dafa mel ni ku am problème bu ko yitteel mu mel ni ku jàq imaam Ali saaba yi nag ñoom buñ lay nettali xadis dañ koy décrire ba mel ni yaa fa mu ne mu niruma ko jàq en fait dafa jàq ndax li ko dal léegi nga xam ko mu ne mu toog fa mu nekk di sàbbaal ya muy def nee na ba jant bi commencé yëkkatiku ci tabaxu jàkka ji lu toll ni ab xeej mu ne ali ne nii loxoom mel ni ku jaaxle ne ko man de fii julli naa fekk saaba yonent bi bari lool mais la xewoon de gisatuma ci dara mu ko ñoom dañ bo xëyaan gis leen ñu julli si seen kanam rek comme nit ku weex bu nerawul guddi da nga koy xam ñu kanam gi day gel mu ne day zone mu ne nga gis leen mu melni ni seen kawari yi wuñ ko melni ñu nekk ci problème ñi nga fanana julli ba ba ba ku ci ku ci nekk fo xamne ne fu noy la da nga gis ay pax fi ro fi umum yi da nekk mu ne buñ julle buñ toge nak ila asbahu buñ ne nod nañ suba nak mu ne buñu sikare rek mu ne dañuy jaayu ni garab goo xam ne ci bisu ngelaw luy rijji la ana ne kuy sikar du yëngatu moom la suuf ya tuddee tawaajudu tawaajudu am am lu wëjdu ba ba ngay amee wëjdu wëjdu nag mooy indi wujudul xaq mooy nga teewlu yàlla waaw tawaajud mooy ming loolu sinaal yi nee na bu ko saaba yi defaan dafa mel ni garab ci bésu ngelaw lu am doole maa ngi ci jublu ñu sant yàlla te itam moytandiku munaafiqan alima lisaan yonente ko wax moytandiku nit koo xam ne euh, gëm nga dafa takk suuf mais nag làmmeñ wa dafa ñaw bu ko defee def lay taylu man bu yàggul semaine passée am na ko ne ma man dama toog toog li ma daan wir dooyu yépp ma bàyyi ko ma ne ko wóor na mën a jaxasoo nga nit ko am lëndëm ci waxtaan te nga wóolu ko te te du duñ koy war a wóolu mais nag yow xam naa ne doo sànku mukk bañ waxaté rek xamna ni ne ngi ci leer ka mais nag da nga koy moytandiku buñ leen sunna te yow defuloo école bobu te gaawoo dem laaj wa dara ji nguug ci dara ji mais da ngay mujj sik te jaamu yàlla yaqin la du sik cheikh mu lo sik mbirum sidi haj malik mu lo sik mbirum cheikh haj abdoulaye ness mu lo sik mbirum seigne mamoun sank bim junjé mais man fàttali ma amna na benn kilifa bu am xam-xam ci mbuso be ñu koy wax mbacke buso bi cheikh sidi haj malik si nelawé cheikh haj abdoulaye ness nelaw te xam nga dañu jégué daf leen marsiya shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata fa bakal wara li takaasufin islaami mu ne jantub diine ca Kaolack ak jantub diine ci Tiwaawan suuxandoo nañ ñoom ñaar ci at mi nga xam ne boo bindee shamsu chiffre ko ci harfu jumal daf lay jox 1340 ci le jour at momu lañ gaañoo mu ne fa bakal wara ñëpp joy ndax lëndëm gu tab mu ne ma laysu ghabin misl abdillahi fi yowmi lkarihati baasiri lmiqdam mu ne mu ne yéefar te xam nga am famille ak njabot xam nga da fay tax do amati quelque fois ci wartane gëstu mais amna jëmmi jamono diise guñ nonu bobu ñu ubbi téeri sunna yi di seet fi ñuy nettalee yonent bi alayhi sam bu événement yi am ci tabia lum koy yankiiwal ci tudd yàlla mais da ngay waaru ndekete yonent bi alayhi salaam bu xëyee fajar ba ba mu nelawaatee amul benn moment bu mu nekkul di tudd yàlla gis nañ sikar yoo xam ne dañ ne yonent bu tiitee guddi maanaam bu yeewoo guddi fil haziri awal minal layl daf koy wax bu xoolee biddiw yi am na ñaan bu muy formuler su mbaam ŋaaxee am na ñaan yu muy formuler su xaj bawee noonu bu bu ganaar euh, sabee noonu su melexee comme bu dënnoo ma ngay ñaan ay ñaanam dégg nga bu bu bu sëppee tànkam balaa dem di jàppi am na ñaan guñ ñu nettali bu jàppee balaa jóg am na ñaan gu muy wax su kabaree balaa jàng am na ñaan gu muy wax bu xam ngeen ko bu sujjóotee xam ngeen ko bu sëlmalee xam ngeen ko dégg nga buy taw noonu bu xoolee géej ma sëriñ yónnant mi ngi mel ni daal branchement boo xam ne amul interruption ci dinamo yàlla ësalan wa loolu nag moo ñuy won ne ñaan du caaxaan mais tudd yàlla boo ko waxee ñaan wax nga tudd yàlla yàlla nag ne qul maa yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum bu ci kenn nax sa bopp bu tax soo ne li ngeen koy tudd di ko ñaan faalewu leen xam nga yàlla moom dafa doyul ba nga xam ne bu suuxaloo ñépp ci géej ak fàtte du ko wàññi dara bu soppi woon ñépp buur daal yi du ko wàññi dara kon nag nañ xam ne fi mu wax foofu la tudd ko ñaan ko te nag ñu jëriñoo kilifa yeeg borom xam-xam yi ba xam nuñ koy ñaanee ak yan teggin la laaj ndax xam nga ñaan am na luy annuler ñaan ñi def ordinateur informatique neex na leen a wax xam nga boo saisiré benn texte ba pare te gardé woo ko xam nga boo sàgganee am ndox boo ko laale rek mu effacé ñaan am na ci yonent nee na kuy ñaan di ñaan yàlla ci benn soxla pour yow mbaa pour keneen mbaa pour ñeneen nee na boo dem ba ci kanam nga ne ñaan naa lu yàgg te gisuma dara mu ne li nga ñaan yëpp annulé na leen faut recommencer xam nga nag dugg xalwa fukki fan ak ben ko bu dem ba ci mujj ga nga xam daanaka garab gaa ngi waaj a meññi ci des khatib rot ci xor rek ñu annulé yépp koku ñak diggu ak aarifine yi da danañ le wax noy ñaané ñaan bu gëna yaatu mo gën ñaan bu gëna yëkëti ku mo gën gis na ko xamne ko won barab bo xamne ci makka so fa du wax nangam nangam yoon soxla soosa ci boppam moom moom moom moom soxla soxla a vert moom yàlla daf koy faj mais def na ko benn yoon gis loolee mais nag ñemeetu fa wax benn soxla bu ndaw bu fa taxawatee jullit ñi rek lay ñaanal wala mujj gu rafet mbaa dee ci gëm yàlla kon nag jàngale jàngale mag ñi moo jar a xam gis naa fa koo xam ne dama gis ay pakistanais ak ay hunus xam nga ñoo dàq joy ñi dem màkk ñi xam ngeen dañu japp ci jaaro kaaba gi di joy di kebetu ci langu urdu ak bengal kenn xamul li ñuy wax ma gis benn tijaan bu tax installé ci seen gannaaw ma ngay ñaan moom itam di ming bañ pare ma ko saway lo doon wax mu ne ñi dama xam ne li leen tax di joy lu sérieux la man tam may ñaan yàlla di jot li ko sidna cheikh pour mu nangul leen li ñuy ñaan xam nga loolu itam façon la ci waaw ñu doo is la tastamiddu laakin ne ko tumiddu waaw muy ñaanal borom soxla yi te ñoom sax ko xam nga duñ ko jox dara te duñ ko gërëm sax parce que yàllaa ko doy ala bi dikrillahi tatma'innul qulub xoolal eh, bésu àjjuma xam nga feet la يلا نبي إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا مولم آيوي نك بوكو سيتي دفا بري حديث يكوي فري نيوم دون جيخ أمنا حديث بني نيت كوي تدو يلا أك جوليت بدول تدو يلا سولين دي كمپاري مين مين جي كمپاري كو دندو أك كو تدو يلا ديو خلا تدو يلا نك موم موي موي موي ديكال خل ما وخ نيب نك yàlla defal nañu beneen ndimbal ci jàngale sidna cheikh radiallahu anhu nee na kuy nekk muridu tijaan yi fexeel ba sa rapport ak alxuraan lu mu néew néew nga jàng ñaari xisib bu set loolu nag mbóot mi ci dollee nekk mooy alxuraan xam nga ci ku ko mën a dégg moom jàng la tarbiya la macha allah mais itam tudd yàlla la zikrun wa tilaawatun fi anin loolu nag moo tax ñu seetlu ne ni alxuraan waxee pour ñu fonk tudd yàlla ci turam yi noonu la ko yonent waxee am na bés mu ne tëll fekk gaa ñu toog mu ne lu ngeen fii def ñu ne dañ doon tudd yàlla di ko sabaal mu ne waaw man kay dama gis rek yërmaande ji di sotteeku rek seen kaw ma ne naa ñëw ngir bokk ci yonent nee na ay nit danañu daje di tudd yàlla maanaam kii tudd ak ki koy déglu ngir yàlla ñoom ñëpp ñooy tudd yàlla nee na bu ñuy ñëw dafa mel ni seen bakkaar yi ay montagne la ay montagne ci rëy ki wax na lu naqar yàlla ki def na lu naqar yàlla ki foog na lu naqar yàlla mais mu ne waaye bu ñuy jógee ci géew sikar ba ña nga woyof toy yu fekk yàlla toj na mboolem montagne yooyu yamu ca waqad buddilat sayiatukum xasanatin yàlla soppi na seen ñaawteef yi mu nekk faf ay ay ay ay ay yoon kon nag comme nodd nañ su fekkee ne insha allahu taala fii la ñuy jullee sëriñ bi ñu julli tënk li ci des programme bi continuer wasalaamu aleykum wa rahmatullah allahu anhu bi mu ne yonent yàlla Muhammad nee na booy méngale kuy tudd yàlla ak ku sàggan du koy tudd mi ngi mel ngay méngale diggante ku dund ak ku dee maanaam ku xolam dee xol bu dee nag al imam ibnu qayim al jawziya nee na yu lëndëm ya daf ceeroot ndànk ndànk ndànk ba muur ko bu ko defee dootu xàmme xaqaayiqul asiyaa dina bon lu lu baax dina baax lu lu bon nee na nag buy tudd yàlla nag dellu ci yàlla muy fóotaat xol ba ba raanu booba wala raynu booba ci nekkoon daal di dëñ te xam nga alquran wax na ñoo xam dafa ne kallaa bal raana ala qulubi ma kaanu yafaluun ñu ne yonent luy raynu mu ne may waa ji day merloo yàlla ñu tomb as tomb su ñuul ci xol ba mu merloowaat ko te tuubut ñu tombaat bu ñuul tomb ya di dem di dem ba gëndaloo mel ni perkaal bu ñu suub palmaan su boobaa nag mu ne waat dootu ko jëriñ fàttali itam dootu ko jëriñ auzu billah waaye nag yonent bi alei salatu wasalaam ci mbiram sikar na mu ci waxee nit ñi lu ñuy moytandikuloo fàtte sikar fàtte tudd yàlla di moytandiku sàggan noonu lay waxee itam ma ne lu ciy sawloo nit xadis bu gudd boobu nga xam ne sayduna abu hurayra radiallahu anhu moo ko nett lii nga xam ne euh, ci ngay xamee ne biñ ne yonent bi sa mission mooy wa mubashiran wa naziran da ngay bégle di xuppe itam bégal ku topp di xupp ku toppul xadis boobu ci la bokk neena na yonent dafa wax nit ñi alayhi salaam ne yàlla dafa am ay malaaka yoo xam ne seen mission mooy dañuy wër rek ci kaw nu bi di seet fu mbooloo muy tudd yàlla nekk waxoon naa sànq tudd yàlla ci baat mbaa ci xol ci alquran mbaa ci sabbal wala ci tur yi ngeen xam nee na bu ñu gisee am mbo bu kenn ci ñoom gisee maanaam alhamdulilah yaakaar naa ko ci yàlla mbooloo mu mel nii dafay yëgal malaaka ya ca des ne leen ñëw leen li ngeen doon a ngi nii seydina abu hurayra radiyallahu anhu yonente alei salatu salaam nee na su malaaka yooya daje nekk ca ñëy sikkar wër leen ay ndombo ba géew ba tas dañuy dellu ci péyu yàlla ba yàlla laaj leen fekk moo leen gën a xam lim leen di laaj xadis bee ko wax ne waaw suma jaam yi luñ doon def mu ne dañ la doon tudd di la sabal di la ñaan aljana waaw di la tudd di la sabaal mu ne waaw mu ndax gis nañ ma mu ne ko gisuñ la mu ne waaw buñ ma gisoon nu ñuy def rek mu ne kon ñu gën a am shawku gën a am bëggeel gën a jëm ci yow mu ne waaw lu ñuy ñaan mu ne aljana mu ne mu ndax gis nañ ko malaaka yi ne ko déedéet muy wax buñ ko gisoon mu ne ah aljanna buñ ko gisoon dinañ ko gën a xemem dinañ ko gën a ñaan dinañ ci gën a jëm mu ne ko waaw lu ñuy muslu mu ne ko safara lañ lay ñaan nga musal leen ca mu ne mu ndax gis nañ ko waquduha annaas wal xijaara mu ne ko gis nañ ko mu ne ko buñ ko gisoon nag mu ne kon ke gën koo ragal gën koo muslu gën laa ñaan nga sori leen ko mu ne ko maa ngi leen di seedeloone may naa leen liñ may ñaan musal naa leen ci li ñuy muslu yéen a ngi doon déglu darsu bi ngeen noon ci ànd ak oustaz Ibrahima Mahmoud Diop radiyallahu anhu ci Alfayda FM 90 point 1 FM rajo bi ngeen doon xaar